ah Ndiaye Sène li nga def rëy na Ndiaye Sène caatu Yoff Bébé Diouldé. Sane caatu Yoff Bébé Diouldé. est-ce mën naa gaaw Fatim. yaakaar naa ne mën na gaaw. jàpp nga ni bu nu mu sotti. ndax Bébé Diouldé mi nurul ku yeexal combat bi. déedéet Bébé Diouldé ni saaba. Bébé Diouldé caatu Yoff. eh arbitre bàyyi leen. xamu ni ba a dara ak daanu bi lay. Bébé Diouldé caatu Yoff. acca acca acca bëgguma mu yàgg. pour combat bi dañu foogoon day gaaw waaye du gaaw. non mënut gaaw combat calcul la te Bébé Diouldé dafa bëgg a cumuler ay victoire Bébé Diouldé caatu Yoff acca jox leen ma ko jox leen ma ko. san Bébé Diouldé mépp na. mais caatu Yoff man nanguwul taxaw faat. jeex na daje nañu. daje nañu. daje nañu. daje nañu. cooki Bébé Diouldé ngi dóor ci kaw faat. Bébé Diouldé ngi dóor ci suuf. mais pourquoi Thiatou Yoff di daw xeex bi fàtt te moo ëpp rallonge te coach bi ko yor te moo ëpp rallonge te coach bi ko yor ku man eh eh eh Bébé Diouldé tan la laa ilaaha illallaah doole Thiatou Yoff daan na Bébé Diouldé doole doole doxul jàmm fàtt daan na ko doole joxul jàmm oh